aja doo booy loo wax nga ni xanaa ma Lamine nag Mbose laa seet sa tey baaxkat bi gën riis bi Serigne fàll bu mag bi <laughs> bàyyi Fallou mu ndaw nee naa la loo waxul ci réew mi baaxul réew mi yaa ko yëngal bañ bañ bëgg sama waa ji nee naa la xolal doxal sa dox ba kenn laal la ma diggaale koog moom yaa ma wane woon proposé ma Sénégal yi tungoom ma ba ma kawe na mu ma ñaar dërëm yaa baax yaa gën koo fi wone tàkk bàyyi Cheikh lool laa la gën loolu laa ana ñu nga doon fekkuma leen soo leen fekkoon lambay ñaaw baay kon du doon man <laughs> aja doo booy loo wax nga ni xanaa ma Lamine nag Mbose laa seet sa tey baaxkat bi gën riis bi Serigne fàll bu mag bi <laughs> bàyyi Fallou mu ndaw nee naa la loo waxul ci réew mi baaxul réew mi yaa ko yëngal bañ bañ bëgg sama waa ji nee naa la xolal doxal sa dox ba kenn laal la ma diggaale koog moom yaa ma wone woon proposé ma Sénégal yi tungoom ma ba ma kawe na mu ma ñàddiram yaa baax yaa gën koo fi wane Baye Cheikh loolu laa a gëm loolu laa. ana ñu nga doon la garanti fekkuma leen soo leen fekkoon ñaaw baay kon du doon man.